allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacanaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur Rewmi FM 97 point 5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame ci wàllum xarale gi Basiru Siise yan na ko yàlla fay mbokk yi xam ngeen ni keroog buñ doon taxawandeki yéen ci bunt buñ doon waxtaane mooy lañu yonent bi sallallahu alayhi wa baaxee ci ngistal mu doon bokkaale su ndaw bokkaale bu tuuti mooy shirkul asxar nee na keroog bés penc ña doon jëf ngir nit ñi gis ko ña doon jëf ngir nit ñi wax ko ña doon jëf ngir nit ñi keroog ba yàlla di fay ña doon jëf ngir yàlla ñoo ñu doon jëf ngir nit ñi yàlla da leen di ne dem leen ci ñi nga xamante ne ci ñooñu ngeen doon sukkandiku ba tax na ñooñu ngeen amoon yaakaar ngir ñu gis seeni jëf yi walla ñu dégg seeni kàddu tey dem leen ci ñooñee ngeen xool ba xam di ngeen am ci ñooñu la nga xamante ne mooy peyor tey incha allah bi iznillahi subhaanahu wa ñu andil leen beneen buntu bu bees bi nga xamante ne moom lañu war a toftal ci buntu boobu waaye buntu bi lañ leen nara andil tey buntu bañ leen nara waxtaanal tey day nekk ngeneelu fukki fan ci weeru tabaski fukki fan ci weeru zulhijja daf di bés bu rëy ci diini islaam da bis bu mag ci diini islaam su ko defee yàlla mi xam fukkilu fan ci weeru tëbuski ba tax mu gëñ ci ba tax mu waat ci su ko defee nañ leen bokk déglu la tax boroom bi gëñ ci fukkiilu fan ci weeru tëbuski bu ñu demee xool ci suñu alquran bu mag ba ñu yore yàlla mi ko wàccee ci suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu saar baa fa saar bi ñu naan suratul fajar moo ne saar boobu la ñu tuddee waxtuy fajar moo ne saar boobu lañu ñu tuddee jamono ba noddkat bi di noddu ci jàkka ji mu naan assalaatu xayrun min an waxtu bam koy nodd loolu mooy nodd fajar buur bi tabaraka wa mu daldi giñ ci waxtu woowu nee na baada audu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim wal wa layaalin ashr walshafci walwitr walleyli ida yasr hal fi dalika qasamun lidi xijr mbokk yi buur yàlla subhaanahu wa taala dafa gëñ ci waxtuy fajar loolu parti bu njëkk bi ci lañu bëgg a waxtaane mu daldi gëñ ci fukki guddi yu njëkk ci weeru zilxijja te mooy weeru tëbaski importance ba ca nekk xew-xew ju mag yafa xew loolu yëpp bu ko yàlla dëxëñee tënk ko def ko ci alquran ba mu jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa jullit yi di ko jàng subak ngoon di ko jàng fépp ci àddina si kon waxtu bu njëkk ba yàlla gëñ ci waxtuy fajar ak fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tëbaski di weeru zilxijja bu ngi demee xool ñaari bërëb yi aaya bu njëkk bi ci sootul fajar di aaya ba yàlla ubbee saar bi ne wal fajar ak ñaareelu aaya ba nekk ci saar bi di wala yaalin ashr yàlla lu tax nga gëñ ci waxtuy fajar yàlla lu waral nga gëñ ci fukki guddi yu njëkk yi ci weeru tëbaski képp ku bëgg xam lii nang ñu topp may ñu nopp ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtu bi mbokk yi buur yàlla tabaaraka wa taala mu jamono buur yàlla tabaaraka wa taala mu bind waxtu buur yàlla tabaaraka wa ak moment ak climat buur yàlla tabaaraka wa mu bind la nga xamante ne mooy guddi ak bëccëg buur yàlla boobu subhaanahu moo ñu doon baaxee la nga xamante ne moom lañ ñu bëgg a wax ni kon képp ko bëgg a xam lambir yi di doxe wala lambir yi nekkee nag ñu may nopp ci réew FM 97.5 subhaanahu wa taala nee na wal fajar gëñ naa ci jamonoy fajar boo demee xool ci alquran ci suratul isra doy na rek ñu tegtaloo wala doy na ci tegtal ñu doyloo ci la yàlla ne wal quraanul fajr ak jàng ba jullit bi di jàng alqur'aan ca moment fajar ci waxtuy fajar ndax inna qur'aan alfajr kaana mashhuuda xamal ne qur'aan ba ñuy jàng ci julli ci fajar day seede day doon témoignage ba qur'aan di témoigner ña nga xamante ne dañuy faral di teewee jamonoy fajar ci jàkk yi ne nañ leen keroog malaaka yi dañuy ñëw def ronde def ronde ci jàkka yi di wur di def patrouille ci jàkka yi jamonoy fajar ak jamonoy takkusaan bu ñu delloo fa seen boroom yàlla dalin laaj ana naki ngeen bàyyee samay njabooti ana na ngeen bàyyee sama jaam yi di seede ne bàyyi nañ sa jaami ñu ngi julli ñuy ñëw takkusaan bu ñu ñëwee ci waxtu yi takkusaan ci jàkkay fekk jaamu yàlla yi di joxe jamono waxtu yi takkusaan ñuy julli ñu julleen door ñoom ña wàccoon jamono yi takkusaan ñoom it ne yàlla keroog buñ doon wàcc di leen xool ñu ngi leen fekk ñu ngi julli kon dañuy wax yàlla bañ dañ jóge ko ci suuf ñu ngi bàyyi sa jaamee ñu ngi julli ñay wàcc takkusaan ñoom it la ñuy wax yàlla mooy ne yàlla ñu ngi wàcc ci kaw suuf fekk sa jaamee ñu ngi julli kon fii bu yàlla ne maa ngi gëñ ci jamonoy fajar bu fekkente ne daf ñu ne ci alquran bi léegi ci suratul isra wa quraanul fajr inna quraanal fajr kaana mashhuuda ak ngëneel ba nekk ci njàngum alquran ci waxtuy fajar ngëneel ba fa nekk doy na rekk ñu ne la jàng boobu ngay jàng alquran individuel wala imaam ba jiite mbooloo bi ci jamonoy fajar ak nu munti nekk xamal ne moo xam danga ubbi alquran laata ñu julli fajar ubbi alquran boobu ngay jàng ci waxtuy fajar alquran dalay seede boobu du bokk ak la malaayka yi di seede sa jëmm ji la alquran di seede ne danga ko doon jàng waxtuy fajar ça n'a rien ak la la yi di seede fa yàlla ni kii di daanoon nañ ko doon fekk ci jàkk ja jamonoy fajar bokkuñu alquran dalay seede ci boppam la doon jëfandikoo ci waxtuy fajar malaayka yi dañ lay seede à ca lañ leen doon fekk ci jàkka yi à leur ba tax na lala alquran di seede loolu du joteeg dara ak lala malayka yi di seede ndax alquran da seede parce que da nga ko doon jëfandikoo malayka yi dañ lay seede parce que dañ la doon fekk nga ni ñum mu taxaw ci sappe bi kon lala alquran di seede fa yàlla ak lala malayka yi di seede fa yàlla bokkul moo tax yàlla ne wa quraanul fajar ak ngénneel ba nekk ci xalqa ci alquran ba ñuy jàng ci waxtu fajar ne woon nañ leen ne moo xam alquran bi nga ubbil sa bopp di ko jàng walla alquran ba imam bi di jàng ci julli te nga nekk ci sappe bi alquran dina la seede si ñaari anam yi yëpp kon loolu doy na tegtal ci importance su fajar ba yàlla gëñ ci waxtu su gàtt soosu di fajar ba léegi doy na ci tegtal ci importance bu fajar am weeri koor dañuy jëfandikoo lekk ak naan di ànd ak njabooti ci waxtu bi nga xamante ni yàlla daf ñu ko daganal waaye nag nee na bu fajar bi fenkee na lépp arrêté fajar mooy waxtu su gàtt soo xamante ne bu xasee bi xar bi nga xàmmee lu ñuul ak lu weex nee nañu bul ànd say njaboot waaye bul lekk bul naan loolu tamit tegtal la ci màndargay importance su fajar ba tax ne yàlla nee maa ngi gëñ ci waxtu yi fajar ak leneen liñ fa xam ak liñ fa xamul ak la dul xëj ci waxtu su gàtt si ñu jox ci émission bi yàlla nee na gëñ naa ci jamonoy fajar bu fajar bi xare bi léegi rek ñu comp tuuti ci màndargay importance su fajar mooy tàqale guddi ba fi nekkoon mu ngi nii di waaj a dem waaye bëccëg ba ñuy waaj a suub mu ngi nii di waaj a ñëw dëgmal na si bëccëg ba ñuy waaj a dugg dëgmal na di ñëw guddi bañ a nekkoon mu ngi nii di dem te guddi buy dem kenn du dégg bruit kenn du dégg son bëccëg buy ñëw kenn du dégg bruit kenn du dégg son te kenn du alerte ne waajal leen nabootu leen wala mel leen nii wala mel leen naa guddi baa ngi waaj a dem bëccëg baa ngi waaj a ñëw déedéet yow da jékki-jékki rekk nekk ci say yitte ba gis ne la fi lëndëmoon dañ na leer ba nga doon séntu ñëw na nee na fang imposé na boppam waaw kañ lu ko fi andi xamoo ko guddi bu fi nekkoon lëndëm kiris la ko yóbbu xamuloo ko mu jëm li fi nekk ne fang fu mu jógee xam lu ko andi xam hakada ni ngay déggee baatu wal fajir ak yeneen ya nga xamante ne xajut si waxtu gàtt waaw ak yeneen yi nga xamante ni xajut ci waxtu su gàtt si yi ñu ci rëli yàlla ne wal fajar maa ngi géñ ci jamonoy fajar waxtuy fajar salaatu xayru mina naw mi jamono buñ koy woote ah ak màndarga yi ñu wax yépp ci waxtuy fajar yàlla ne na géñ naa ci waxtuy fajar woowee mooy yàlla lu tax nga géñ ko dem leen xool ko di ngeen gis bénéfice ya fa nekk di gis njëriñ yaa fa nekk di ngeen gis ndigle ya fa nekk ngeen nekke ko ngeen gis fa tere ya fa nekk ngeen sori tere yooyu xataa malaka buy séddale wërsëg ñu ne waxtu woowu lay commencé séddale wërsëg ku mu fekk ci jàkka ji mu jox la ku mu fekk ci yoonu liggéeykaay mu jox la waaye ku mu fekk ci biir mbàjj moom dala naan yow bokkoo waaw kañ kon yow mi doon biddante doo faale fajar boo déggee waxtaan mi ci Rewmi FM 97.5 na nga waajalal sa bopp fajar da yonent wax na ci sama xeet bi fil bukuuri baraka waaw sama xeet bi yàlla dogal na si ñoom yàlla wërsëgal na leen lépp lu ñuy teel a def yàlla dina si roof barke waaw kañ kon teel a xëy barke dongo nga siy jële teel a julli fajar barke dongo nga siy jëlee ak xéwal ya ko yàlla dexiñ yan nañu ko yàlla yombal borom bi ba léegi continuer ci aaya bi ne wala yaalin ashur maa ngi gëñ bi léegi ci importance ba nekk ci fukki guddi yu njëkk yi ci weeru zilxijja ci weeru la tax nga gëñ fukki fan yu njëkk yi ci weeru zilxijja ku ko bëgg a xam topp ci Rewmi FM ñu leeral la ko su ko defee nga xam ko yal nañu ko yàlla jàppandal yàlla ñu yàlla may dégg topp amiin ya rabbal alamin ndax fukki fan yu njëkk yi ci weeru zilxijja zilxijja nag mooy weeru tëbaski ci wolof ci arab mooy zilxijja waaw mooy zilxijja ci wolof mooy weeru tëbaski yàlla nee na ak maa ngi nii di gëñ ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski la fa xew la ibrahim doon waajal ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski bi la dama waxtaanoon ak doomam Ismaayil dama gént ma di la rey ci weeru tëbaski la xewe ci fukki fan yu njëkk yi li mu waxtaan ak soxnam ne ah won ma si gént bi ne naa rey sama doom ah soxna si d'accord événement yooyu noonu yëpp ci weeru zilxijja ca la xew ci weeru zilxijja la iblis ñëw di jax-jaxal xolu góor gu mag googu di ibrahim alayhi salaam ibrahim daal di ko sànni ay xeer fum ko sànni xeer ak num ko sànni xeer ak ñaata xeer la ko sànni loolu yëpp yàlla xamal na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi daal di ko sunnaal ci ajum màkk bi nga xamante ne moom la ujaaji di sànni jamra keroog bu ñu taxawee di sànni xeer fa iblis taxawoon yonent bi male la ko tey foofu la ñu def fa ñuy sànnee jamra fa Ibrahim taxawoon espace boobu comme nit ñi dañoo bëri ñu daal di wëralee mbir bi def ko benn cercle boo xamante ne kenn ku nekk da ngay for la nga xamante ne mooy sa xeer nga daal di wax audu billahi min asheytaani rajim daal di sànni xeer daal di sànni jamra waaye sànni xeer boobu du question ne boobu ngay sànni kooku ngay jam déedéet jax-jaxal ba iblis def su xolu Ibrahim ngir mu weddi la ko yàlla digal yow it lépp lu la yàlla digal en tant que ujaaj yow mi dem màkk en tant que ujaaj yooyu ngay fas yéene ci xeer bi sànni ko ndax jax-jax bu iblis di def sa xol na deñ da nga doon ñaaw njortu si nit ñi jëlal ñaaw njort bi tëfli ko ci xeer bi ne su booxuma la iblis aoudu billahi min asheytan rajim nga sànni ko danga amoon soxor ci sa xol jëlal xeer bi nga ni su booxuma la auzu billahi min ashaitan rajim iblis yàlla nga dëñ sama xol nga sànni ko événement boobu boo ko couvrir lee nii wallahi boo ñibbisee dañu naan ah waa ji de wala ndaw si de alaaji bi wala ajaratu bi de wax dëgg neex yàlla bu ñibbisee moom ah gis nañu soppete ku mag ci moom da doon yuuxu nit ñi léegi day wax ak nit ñi ndànk da doon gidd nit ñi léegi day teewlu nit ñi xaar leen ba ñu sottil lañ koy wax mu daldi leen tontu mooy kii de aj makkam ba mu aji nii moom am na lu mu soppeeku ci moom nii lañuy déggee fukki fan yu njëkk yi ci weeru tëbaski ndax soxna yoon ci al ibrahim daa muñaloon boroom këram kon yow soxna si nanga nga muñal sa borom kër tàmbali ko ci fukki fan yu njëkk yi ci wéeru tëbaski ba beneen tëbaski bi di si xelaatal feet ba ñu nekk nii dafa am ki ko dund ci naqar ak xol bu metti waaye ndegem yàllaa leen ko sant yàllaa ko sant borom këram mu def bànneex ci xolam yàlla xool xoolu soxna si mu gis ne lii ma sant borom këram dakaa neex yàlla xool xolu doom bi mu gis ne li ma sant baayam dakaa neex yàlla xool gis si xolu waa ji si boppam di kilifa gi di Ibrahim mu gis ne la ma ko sant neex na ko yàlla ne ndegem naqaral ngeen ko jàppe waaye ndegem sama ordre la bi ma digal seen borom kër di seen mbaay mu nangu ko ngeen nangule ko ko kon dinaa ko soppi mu doon bànneex allahu akbar ñu jàll jël naqar ba leen nar a ak tiis ba leen nar a dal soppi ko def ko mu doon bànneex est-ce que yow foofu nga toll ak sa borom kër est-ce que xale bu góor bu naan papa jëndal xar jëndal xar est-ce que yow foofu nga tollu ak na Ismaïla toll woon ci baayam est-ce que baay bi noonu la tolloon fa yàlla yow mii ku xëbër xëbër nan da ngay jënd xar kuy bu mag kuy un million cinq cent mille est-ce que na Ibrahim tollu woon fa yàlla est-ce que yow noonu nga tollu woon fa yàlla question bi toujours dañ ko war a di poser suñu bopp yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla may dégg ak topp kon borom bi ne maa ngi gëñ ci fukki fan yu njëkk yi ci weeru Tabaski ak événement ya fa jot a xew yépp ba mujje bi ma daal ko sottil ma daldi ko changer soppi ko mu doon bànneex bànneex boobu noonu moom mooy feet ba ñuy waaj jublu si nii bu bés ba jotee nag comme ni ko waxee woon suñu waxtaan yu jiito ya di nga gis ah àddina si yëpp dinañ mànkoo toppatoo seen gàtt tuur deret rey bakkan nga xamante ne mala lay doon te kenn du porte plainte fen kenn du jébbal kenn yoon kenn du wax kenn lu tax nga def lii ndax loolu keroog dafa dagan boole ko fukki fan yooyu mu am benn bés bu spécial boo xamante ne mooy wuquufu arafa taxawaayu arafa tem bay nekk ci waxtaanu taxawaayu arafa bu bés ba jotee ci biir fukki fanu njëlbeenu weeru tëbaski dinañ ko waxtaan ak mbokk yi buñ ci yeggee waaye doy na rek ñu ne taxawaayu arafa yàlla suñu borom day séedaloo malaaka yi moo ne yéen a wax sama jaam yi ne ñii bu ñu wàccee ci kaw suuf dañuy tuur deret dañuy yàq xool leen ñii tey ñu ngi nii amuñu kenn ku ñuy woo ku dut man amuñu kenn ku ñu sàbbal ku dut man waaye dama leen di def seede yéen malaaka yi ne képp ku fi taxaw lépp lu mu ñaan dinaa ko may képp ku fi taxaw lépp lu mu jéggalu dinaa ko ko jéggal képp ku fi taxaw lépp lu mu mébét dina ko ko antul xataa ñi fi ñëwul waaw ñu ñëwul béréb ba lépp lu ñu ñaan ma mee leen ko keroog yonent bi ne yow mi mënut a dem màkka yow mi mënut a fekkee taxawaayu arafa lañu sunnaal ci yow nanga woor juróom ñeneenteelu fan bi neuvième jour ci weeru tabaski nanga ko woor ëllëg sa lendemain bi di dixième jour bi ñu daal di reyndi suñuy xar sol suñu yëre yu rafet daldi di bàkk yàlla ci xeetu takbiraat yi nga xamante ne dina ñëw ci kanam kon lii mooy njëlbeenu suratul fajr la tax yàlla gëñ ci njëlbeenu bopp saar bi ak la tax yàlla gëñ ci fukki guddiyu njëkk yi ci weeru tabaski su ko defee ñu xool tafsir bi nga xamante ne moo nekk ci suufu aaya bi tafsir borom bindikat bi nee na ay yaani loolu mooy aqsama allahu subhanahu yàlla suñu borom moo gëñ buur bu nga xamante ne set na sellaange ñeel na ko dañ na ci lépp li nga xamante ne ñu ngi ko koy bokkaale bi waxtil fajar yàlla moo gëñ buur bu sell bi ci waxtuy fajar ak màndarga yañ leen wax ci waxtuy fajar waaye nag ba léegi li tax mu gën ci wala yaali achara awal min zilxijja fukki fan yu njëkk yi ci weeru tubuski yàlla lu tax mu gëñ foofu yëpp moom la la tafsir bi di àndil bismillahi subhaanahu wa taala mu ne wa ma charaqat bihi ak lépp li nga xamante ne fenk na ci waxtu boobu wa kullu shafi ak lépp li nga xamante ne ñaar ñaar la yàlla bind ko mu doon peer wa fardun ak lépp li nga xamante ne yàlla bind na ko mu nekk benn wa bi leyli ak guddi bi nga xamante ne ida yasir keroog bu guddi bi fenke bu bëccëg bi commencé di dikk guddi bi di tàqale ko bi zulmihi bi zulaamihi ak guddi bu commencé di dem ak lëndmaayam comme nuñ leen ko waxee alaysa fi aqsamu li mu mudakkuruuna maqnao li zalika aqil yàlla nee na ba xam doyut ci boroom xel bi nga xamante ne mooy ràññetle mooy tame di observer di géem a xelaat fu yàlla nu muy dugalee lëndëm ci bëccëg di génnee lëndëm ci bëccëg maanaam nu muy dugale leer ci lëndëm di jël lëndëm di ko dugal ci maanaam guddeeg bëccëg nu ñuy wecc wante képp ku di boroom xel képp ku di xelaat lii war na laa doy kéemtaan bu toll ni war nga ci seen màggaayu yàlla ak dooleem imaginel bu fekkente guddi day ñëw bëccëg di dem ñaari climat benn bu nekk yàlla utal ko son son boo xamante ne ku ko dégg dinga dar sa ñaari nopp kon fu ñuy jëm guddi baa ngi tàggatoo di dem mu andi son bu toll ni kenn mënu dégg bëccëg baa ngi waaja a ñëw moom it mu àndaaleeg son boo xamante ni kenn mënu dégg bu fekkente ne yàlla nii la koy defee kañ la ñuy am jàmm kon mu métti kon mu métti kon mu métti waaye dañuy jékki-jékki rek waajal suñuy bagage jël suñuy oto min ayn ila daar jóge koo liggéeykaay ba fu ñuy jëm kër ga lu xew parce que dafa guddi dañ war a dem dallu dañ war dem noppaleku léegi ñu ngi sóoraale heure bi ñu ngi jëkkalanteeg heure bi waaw bëccëg ba ñu nekkoon ci bureau yeeg marché yeeg kaw tali bi di dem ko ñëw activités yi mel ni tulleeg male mais waxtu guddi bu jotee di policiers yi mooy dàq nit ñi comme jamonoy corona bi déedéet waxtu guddi bu jotee kenn du wax kenn wàccel sa rideau magasin tëjël sa buntu magasin kenn du ko wax nit ay jékki-jékki rek nga ne xam naa guddi jot na heure wàcc ñëw na parce que boo fa jaayee nekk guddi dootoo gis client donc voilà fu ñuy jëm kër gi lu ñu fay dem defi ko kon yàlla nee na képp kuy borom xel boo gisee guddi ni muy remplacer bëccëg war nga faa gis màggaayu yàlla subhaanahu wa taala du projecteur bu ñu koy defal du scientifique bu ñu koy organiser du bu buy ñoddi bëccëg bi bu xaaba di indi guddi du demee noonu ñun ak scientifique yeeg intellectuel yeeg bu xaabakat yëg ñun ñëpp dañuy bokk gis suñu bopp ci bëccëg ndar kam ñu jékki-jékki gis suñu bopp ci guddi bu lëndëm kiris kenn mënu ci dara ñook man nag yow kenn ñun ñëpp fa yem kepp kenn mësul dégg ñu ne scientifique tey wala mois prochain wala année prochaine dañuy kale guddi bi bëccëg du ñëw dañuy kale guddi ko quoi guddi du buuse dañuy faral di nekk si guddi éternellement kenn mësu koo dégg ci scientifique ak nu ñuy bari xam-xam bu kat yi moom taxuñu may wax ñun kañ moom mënuñu affaire bi dara waaw du scientifique du intellectuel du bu xaabakat du gisaanekat kenn mënu fii téye bëccëg éternellement waaye kenn mënu fii téye guddi éternellement ñok man nag yow ci bokk yem kepp dañuy jékki-jékki guddi nuyoo si te ñëpp a koy fay boo ko fayul tamit moom danaan ne faax toog waaw jëf li muy jëf lëndëm kiris nag te mënoo ci dara waaw loo ci mun mooy tal sa projecteur mu leer nañ moom it guddi bi mënut si si loolu dara taal sa projecteur bu leer nañ mu ne tey waaw xattaa bu waddee sa nga mën ko afford guddi tamit mënut ci loolu dara waaw waaye yow it dara tee munoo teree guddi ñëw installé wu yow it ci loolu tous du scientifique du intellectuel kon nii lañuy déggee guddi buy dem ak bëccëg buy fenk bëccëg buy dem ak guddi buy tàbbisi parce que ñaari climat yi ñoo la séq yow doomu aadama ba tax na nga dégg waxu xasanul basri rahimahullah mu ne yow doomu aadama xamal ne bés ya ngay dundu moo la fi tax a toog moo la fi tax a nekk bi tax na war ngaa bàyyi xel bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ni bés boobu dem na xalaas intaha dootut ñëwaat kon déglul la lay njëriñ ci sa diine waaye déglul lalay lay njëriñ ci sa àddina su ko defee bëccëg bi buy dem na yóbbaale loolu waaye boo nekkee ci safaan ba tamit boo ko xamee ak boo ko xamul bés boobu boo fekkente ne dangaa jël bés boobu consacré ko ci fecc ak tëbb ak dal ak lu kenn dut mun a nettali ngi topp sa bànneexu bakkan rek bëccëg boobu loolu lay enregistré sa dund bi te loolu lay yóbbaale ëllëg bés penj buñ la ko wonee dinga ko rëccu te balaa loolu nag moo tax réew Rewmi FM 97.5 mu di leen baaxee waxtaanu fajar ba fi jaar képp koo xamante ne may nga ñu sa nabu nopp ñu xelli fa loo xamante ne moo jógee ko ci ndigle ya yàlla digal doomu aadama bi ak nag ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi lii mooy la leen Rewmi FM andil ci waxtaanu fajar noo ngi ñaan yàlla tabaaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan aqulu ma tasmaun wa kullu amin wa antum bi xeyr baraka allahu lii wa lakum fi lqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa qur'an hakim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahi wa barakatuhu allahi wa barakatuhu allahi wa barakatuhu